ayca jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu na leen bu baax a baax ñi ngi jëm la 15 août ak arène ak fële ci arène national ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy waa lewto production tëgg combat ba nga xamante ne bii combat espoir la Tigre Junior ak Boy Niang di combat ba nga xamante ne bii promoteur yu bëri soxla woon nañ ko wante Leewtoo production la ko suñ borom jagleel ñu nekk ci open press su ki nga xamante ne bii mooy Tigre Junior gis ngeen open press bi ni mu bëree mbooloo macha allah xam naa la 15 arène nationale kenn du fa xej pratiquement fi mu defee open bi mënuñu faa waxtaane moo tax ñu ñëw ba buntu këram fa yéene seq ak moom waxtaan bi mbër ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu wér doomu yaay ñu ngi lay ziar bu wér du nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu suñu support yëpp ginnaaw bañ sant yàlla nag ñu ngi gërëm suñuy ñaanu waaju di ñaanal sam papa fi mu nekk yàlla na ka gënal fi mu jóge yàlla suuf yàlla na suuf oyof yàlla xare ko àjjana di ñaanal sama waajur bu jigéen mu fi nekk yàlla def mu fekkee suñu njëriñ ndax moom lañ fi dese quoi waaw ah, dañoo ñaan yàlla li muy séen su ñun ñu gis ko si ñun sooba yàlla. le 15 août nga jëm arène nationale dajeeg adversaire ba nga xamante ne bii ñëpp nee nañ la ba nga xam ne cin luy baax lay doon. waaw ñun moom arène nationale miin nañ ko bëri nañ fa trois grands combats moom man maa ko fay dalal ndax mosu faa bëre sooba yàlla bu fa ñëwee dinaa. maa ko gën a jege arène maa ko gën a jege arène bi. bii mooy sama troisième grand combat foofu te bu ñëwee dinaa ko fa dalal xam nga daan ko mu dem ñibbi incha allah dama koy dalal ndax mosu faa bëre. naanagul euh, miinagul suuf bi te man naa ko bëre naa fa trois grands combats incha allah moom Iba maar la xam Iba maar xam nga dafa oyof mais fee dafa diis bu sooba yàlla dinañ xeex foofu dinañ bëre bu sooba yàlla incha allah. mais yaa ngi bëre ak mbër mu naqaree bëreel booy ñàkk. waaw naqaree bëreel moom ñun mbër mu naqaree bëreel si lañ dëkk. waaw ñi daan ñëpp dañ naan mënoo leen a daan dañoo naqaree bëre ñenn ñi mosuñoo daanu te ñun leen daan waaw moom incha allah moom moo si tegu dañuy ñëw rek dalal ko bu ñëwee ñu jàpp ko daan ko. mu ma soo ñëwee mu ñëw soo ñëwul mu ñëw. waaw loolu moom biti la fanaan Tigre kenn ku ko xam-xam ne ne moom du xaar benn mbër bu arbitre ne bu arbitre soufflé sooba yàlla bali day tàq waaw bu sooba yàlla loolu na nga xam loolu bu so booy ñàgg bu arbitre soufflé benn pas duñ ko liñ bëre bale dinañ càq dinañ duma dinañ daan bu sooba yàlla. mën nañoo ñaar ñëpp ngeen samp jaaga ndengeñ ndengeñ seen bopp xeex. waaw man trois grands ko yi fa bëre yëpp samp jaaga laa def. bëre bëre bëre bu metti bañ ñuy naan waa ñaari mbëri moom nu mu demee loolu lañ xam quoi ñun. bu sooba te dinañ bëre li mu wax lépp dégg naa ko nag. bu sooba yàlla dina fekk si biir géew te boo fekkee si géew dina xam ne kuy jëf ak kuy wax bokkul. nee na ma gars yi ay teen laa gasaloon mais kii mbalka gasal te dama ko ci suul. non musul gasal kenn teen njaga caam rek la daan ku ñi ñi xam ñi si des ñëpp booy bu dëkk caare gee Dakar daan. guy gi la ñu ah, waaw moom suñu bët suñu bët teguñu ko si moom quoi chaque jour ñu wax ko gars yi. fils de Balla wala incha allahu rabi buñ ko daanee suñu bët si ñeneen lañ ko teg quoi sooba yàlla. mais ñaa booy ñàgg fi mu toll nii. waaw est bi moom booy ñàgg lañ nekk si lay préparé mais incha allah bu soobee si moom teguñu suñu bët si moom bu sooba yàlla ñun dañoo bëgg a teral suñuy waajur waaw combat bu gaaw lay doon bu sooba yàlla bu wariwul bu dawul deful dara bu sooba yàlla dinañ bëri dinañ xeex li mu wax dégg naa ko nee na dina war noox nag mais baal leen ma si kàddu yi bu sooba yàlla ngir yàlla ak bi li nga wax booy ñàgga boo yebul waa ñàgga na nga ko def bu sooba yàlla ngir yàlla ak yonente bi li nga wax dang nga mooy duma nag ma duma wala nga duma ma wala ma duma la bu sooba yàlla waaw bu sooba yàlla bu abdou soufflé bu sooba yàlla loolu nga wax rek na ko dëggal incha allah. ay combat yëpp di métti. waaw ñun moom comme mën ñun lépp lañuy ñuy waajal combat bu métti gaaw lépp lépp la ñuy waajal ndax chaque jour dañuy entraîner dañuy teg lu métti suñu kër si dañuy teg lu métti waaw di ñaanal sama rax Liss lis njaago di ko ñaanal victoire bi mu jógee yàlla na ko jik ndax ñoo doon waajandoo lu mat ay 3 mois di dem si dini tabaski sax xamuñu lu luñ tabaskee ndax da ngay da ngay da ngay ñoo dem si dini di sant suñu kër su dem a jànni xam lu ma la wax dañuy dem saal mu ñuy teg lu méttee méttee métti Coleman waaw ñu ngi koy sant bu baax waa di dem Botora mu ñuy teg lu métti xama rek gars yi yërëmuñ ñu dañuy jàpp saal di ñu teg lu métti bu koonee ñu dem contact gars du ñu yërëm xama di daj ñun ay coono yu méttee métti xama waaw di sant waa Rochette yëpp nag ins bi nii maanaam wax dafa jotatul quoi ins bi nii jëf moo def. waaw combat bi foo ko teg. waaw combat bi fuñ ko teg muy liggéey rek liggéey liggéey déggal suñuy suñuy kilifa xama ku si mel ni Matar Alpha xama ak yeneen staff bi ñëpp ñi si bokk xama xama ay Cheikh Ndiaye ay Alsaan xama ay ñoon Tafa Kebe xama Kebe mooy première ndax daanaka ñooy ñooy fanaanandoo ñooy yewandoo sama xarit la sama doom ndey la xama booy yëpp ñun ñi nga gis nii ñëpp ñun ñoo yarandoo ñoo fowandoo xama ñi nga gis nii du ay fans kase ay ñoo yarandoo màggandoo ñu nekk ah kay ami d'enfance la mbapat la la ñu doon topp gis nga kii néegam lañ daan nekk alsaan néegam lañ doon nekk ñoom ñëpp moom xam na booy ñaaga bu baax waaw incha allah mais booy ñaaga bu soobee yàlla dina xam ne ñun. xanaa kon moo waaw moo ñu jox secret bi xam nga di sant da maanaam daa am ñoo xamante ne si bu ñu amee combat bu ñu amee combat daa am ñoo xam dañu si sant ku si mel ni Matar kii day tëj atleem lu mat ay un mois du tal liggéey xam nga ay Tafa Kebe xam nga duñ talati liggéey fan si gis boo yëpp fi la ñuy fanaan si bundu kër gi damay dem sax su ma yeewoo ba giseen sax dama yaram day daw quoi waaw di leen wax ni ñoom ñoo tax ñuy gën a rayante xam nga di woo xam naa ci fin bi lay mais mais mais combat bi ñàgg nee na bakkanam la ci teg moom waaw moom moom mii di moom mii di paa moom bu tegee sama bakkan man mi nga xam ne xale laa nekk si buntu làmb sama yaay yaakaar ma ah man may yaakaarul làmb lamsaar ikir lamsaar dañ maa yaakaar tey ñun ñoo fa des ñun xale yi ñëpp dem nañ permax dañuy wéet muy wax naa bu dul yéen lamsaar du dem kon moom bu boom bu dekkee lool moom muy paa bëre ba tas won man lan laa war a moom paa moom combat paa la moom bu moom paa boo xamante ne si yow moom bu ko jaralee man xale la laa a def xam nga lu def daanu moom lu si teg lu si teg lu si teg rek lu mu indi day daanu bu sooba yàlla waaw bu bëree daanu bu xeexee moo duma ko bu sooba yàlla bu taxawee dëggal boppam bu bëree ñu ñu bëree ñu bëree du duma ko ba muy bëgg a dee sookaa daan sooba yàlla waaw incha allah dafa am ay mbër yu ñu soxla yu ñu génnee ci open bi ñëw fekk mu fees dell sa yaram lan waaw sama yaram day daw ndax ñun chaque jour bu ñu xewlee nii lay demee waa Rochette Biafra jàmm nga xama nga Ramdam guy ga ñëpp ay sonn si ñun xam nga buñ amee mooy li ma la bu ñu amee bis maanaam booy ñu nelaw dootuñu def dara maam ñenn ñi dañuy bàyyi seen liggéey am na ñoo xamante ne si dañuy jóge dëkk ak dëkk ñëw fi xam nga ndax làmb ji quoi xam nga di sant tamit xam nga ñi ñuy jàppale bu baax xam nga ñoo xamante ne si jël nañ ticket yi ndax dañoo jël ay bolog yu bari am na ñoo xamante ne si jël nañ ticket tat ay Tafa Bari dañoo jëw mu jënd bolo mu jënd bolok Tafa Bari ñu ngi koy sant bu baax di sant seex Ndiaye quatre bolok la jënd xam nga di sant Moustapha Kébé tamit jënd na ñaari bolok Cheikh Bombaali mii dañu koy sant bu baax moom tamit ñaari bolok la jënd maanaam dañoo ñëw rek bolok yi gars yi séddoo ko nañu mbër doo ñu gën a gore yow yaa ngi ñëw xam nga dañuy bégal kon yow ñun dañuy jël suñu xaalis bi ñax mais lool lu muy def ci yow ñu andi billet yi ñu saxatoo ko jënd lépp waaw da lay gën yokk jom rek bu tax bu doon def benn ngay def fukk ndax tey jii nii ñoo xam ne ñoo xamante ne si dafa loo leen dara ñooy liggéey seen xaas ñëw di leen ko jox di yëkkati ay si biyee ay 400000 si biyee kon ñooñu mënoo a fay quoi te defaloo leen tax ñu def loolu xam leen sant bu baax ay tafa xam mataar ñu ngi sant bu baax ay booy ngaay muy alsaan ñoom ñu leen sant bu baax di sant waa poste yëpp tam ñu leen woo si combat bi waa poste ñu ñaan ñëpp ñëw jàpp si combat bi ñun ñëpp ñu dem jàpp di woo Cheikh Ba Medina Cheikh Ba Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu ngi koy woo bu baax xam nga di woo chauffeur am ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan xam nga ñoom ñëpp na ñëw jàpp si làmb ji jëndal ñu ay billets xam nga ndax fii nii caare fii xam nga rek ñoom bu ñu si jàppul du baax quoi xama di leen wax di woo Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu ngi koy woo bu baax borom Medina xam nga di woo xam nga di woo di woo chef Médoune bu baax a baax a baax a baax di ko woo bu mu ñëw jàpp si bu baax di woo waa diaspora bi xam nga ñu ngi si jàpp bu baax ku si mel ni Maodo ginax jàppatu si bu baax yónnee na ñu bu bari xam nga Cheikh Bol ñu ngi koy woo bu baax Mama Mbaye xam nga waa waa Manko ñëpp ñu ngi leen di ziar daal xam nga waa diaspora bi waa Tidiane Tidiane sunu grand la luñ xew la si siy nekk moom moo ñuy entraîné moom moo ñuy wax def leen lii def leen lii def leen nii équipe équipe Lamsaar boo fa ñëwee sa yaram day daw ay xale rek a fa nekk di entraîné ponkal yëpp ñu ngi si kaw man maa fa nekk fii ñoo fa nekk insi bi ñu ñoo yaakaar équipe bi xam nga Tidiane ñu jiital ko muy suñu pap di ñaanal Siteu bu baax moom tam jënd ay bolok di ko ñaanal waaw moom jënd na ay bolok waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax démb dama toog fii di añ mu woo ma téléphone ne ma dinaa jëndal ay bolok xam nga dinaa si jàpp bu baax ba nga xam ne jàpp naa si dama doon añ mu woo ma téléphone xam nga te loolu bu ko neexoon ne moom mbër bu mag la quoi du def loolu mais daf ma woo daf ma daf gis naa lépp maa ko waroon a woo mais dafa ma woo téléphone ne ma mais gis naa lépp xam nga mais dinaa la jëndal ay bolok xam nga sooba yàlla yonte bi ñu ñëw jàpp mbër bi daan ko sooba yàlla. le 15 ban façon combat la ñu mën a xaar. waaw le 15 incha allah xam nga li mu bëgg rek sooba yàlla ñu bëggal amateur rek xam nga muy lan muy su su ko neexee mu bëre ñu ñëw ñu bëre su ko neexee ñu xeex xam nga ñun daal ñu ngi woo suñu supporteurs yëpp nañ ñëw xam nga mobiliser mobilisation lañ gën a soxla. di woo monsieur le maire Mbaye Sène na ñëw jàpp si combat bu baax di woo tamit xam nga di woo seex Thiam bu baax na ñëw jàpp bu baax a baax a baax a baax xam nga di woo ñëpp daal ñëpp képp suñu limee ñuy juum xam nga Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñi ngay woo bu baax xam nga Messi ñi ngay woo bu baax ndax da siy jàpp bu baax a baax a baax te képp kuy képp kuy tamit xam nga autorité si dëkk bi ñi ngi lay woo recette waa borom sareet yi ñi ngi leen siyaar baax mooy waa guy ga xam nga waa marché caaro yi xam nga ñëpp ñi ngi leen siyaar di sant Cheikh Gueye bu baax Cheikh Gueye ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw Cheikh Gueye waaw recette waa Manko xam nga ñëpp ñu ngi leen di sant Rakaju Ramdam Sam-Sam xam far Farba Talimam jaara ñëpp ñu ngi leen siyaar quoi Talimam Diarra waa Talimam Diarra xam nga ba jëm ba Fass Mbao ñëpp ñu ngi leen siyaar Jaksaaw Diamaguène Jaksaaw 2 ñëpp ñu ngi leen siyaar waa Ramdam ñëpp ñu ngi leen siyaar quoi Boy Niang nee ñaar lamb boolewu leen parce que soo gisee mu jël la dafa waroon a bëre ak combat bi ko ñu aj ko ajaatu na loolu moo tax mu jël la a valoo ko noonu day dem xooli leneen parce que nee na yow nekk du buuxante ak yow nee na na nga taxaw na nga dëggal sa bopp ko bëree yow waaw moom dafa war a bàyyi ay ñu nekk Thiès xam ñu nekk Thiès moom dafa juum quoi wala duma seetaan maanaam maanaam maanaam maanaam ki muy wax noonu kooku moom moo ko mën booy jaxaaw musul daanu ndaan naan dama kaa jàpp duma ko ba muy bëgg a dee mu dem ba am cinq avertissement man mënu ma si dara ñu bëree ba combat bi jeex at bi yëkkati sama loxo xam lu ma la maanaam lu muy wax noonu day nax nit ñi di leen di nax ay ay supporter am day nax mais bu la 15 dina xam ba xam daf mooy duma ba pare soog maa daan wala man nee naa ko man surtout maam Seera Falla surtout Ndoumbé Falla kenn du ma duma Soora Samb moy sama yaay waruma kaa wax sax si télé bi Soora Samb mooy sama yaay kenn du ma duma lamb ñett la waaw am na adversaire ko bëggee daan da koy ko bëggee daan da koy xaar am koo xam da ngay daje moom booy dama kay jëli dem daan ko ñaar la laa lay ñaan booy ñàgga bul def dara yow maama gaaraal nga taxaw rek di ñu xaar ma dem jëli la jàpp la daan la du ma ko may benn seconde dama kay ja arbitre bu soufflé dama kay dem jàpp daan ko ay seconde soo du ma ko xaar soo ko yàlla ñu si kawam arbitre soufflé bu abi suufee dina ko may dara sooba yàlla incha allah. waaw promoteur bi ñu ngi koy nuyu bu baax xam nga di ko sant bu baax a baax daanaka Fils de Balla moo waroon bëre grand combat bi man mi di wax ak yow maanaam booy kii dafa bëri wax di wax rek man di wax man maag maag Bour moo waroon taxaw. waaw ka am waaw ka defet su ma ko bàyyee su ma ko amee wax waa recette waa ramdam bàyyi naa bëre ñaanu ma ko yàlla yàlla nañ si yàlla musal ka defet bi su ma ko amee man sama troisième combat xam sama deuxième combat laa daanu li ma tegale si ay victoire bu ko tegaloon si ay victoire du gëm moom dafa tegale ay defet ba sonn soo ñëw daan daan daan daanu lay daan daan daanu man nag néew ma mbër yooyu man deuxième combat xam troisième combat lañ ma daan am naa onze combat maanaam maanaam moom maanaam maanaam moom xamul léegi après moom incha allahu rabi dina xam quoi incha allahu rabi. non ñun moom duñ sax saaxa sunu làmm man du ma njaga caam njaga caam du man Tigre Junior la Tigre Junior Tigre Junior la man nekk nekkuma fii di def yooyu noon ñu affaire tapé doy ay lalang lalang yow man def moo ko dañuy ñëw ñu loo taxaw. ki mujj daan vingt neuf secondes la ko daan. waaw booy yow yow yow yow yow yow xam nga yow c'est que man bëgguma di wax ku ma daan quoi ndax tey booy dem booy daan ni toppaat si li nga wax. combat bu maag dugaar pol bu ma mujjee daan matul sax ay ay ay secondes ay cinq secondes affaire yooyu noonu xam lu ma la wax général Waly Faye six secondes laa ko daan. maanaam xam nga ay ponkal dama leen di daan si ay secondes yoo xamante ne si maanaam moom dafa baax di wax xam nga moom daa bëri wax daa daa. xam nga maanaam man daam foo xam dama faa teg sama bët te nekkul moom quoi te bu sooba yàlla incha allah xam nga la lañuy ñaan waaru set na ñëpp génn xam nga lam xam di ñaan waaru set na ñëpp génn xam nga ma la wax na ñëpp génn lam man dama see am cër xam nga lu lam dañ see am cër ndax lam daa dañu see yaakaar xam ñu ngi ñaan ay bi na ñëpp génn xam nga si kàddu mujj gi mooy di woo waa diaspora bi na si ñëpp jàpp mu mi mbay moom laa tuddee drapeau bi xam Oumy Mbaye di ko woo bu baax a baax si làmb ji xama euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu papa Perzal bu baax a baax a baax tey sonn suñu Perzal Perzal ñu ngi koy sant bu baax ndax suñu papa dafay jóge quoi mais nekku fi xam nga mais moom moo ñuy taxawoo wàllu papa xam nga di ñu taxaw bu baax di ñu conseil bu gisee lu ñu metti ñëw woo ñu wax ñu ko xam nga di sant samay mag bu baax ay xaar jabaay xam nga sant jëkkëram a xam nga di sant sama rakk xam nga Fadem di sant sama waa famille ñëpp di sant samay doomu baay ñoon Kiné Jabaay ñoom ñëpp ñoon faale ñoon ndayam ñoom ñëpp ñu ngi leen siyaa di sant xama di sant ñoon ilimaan ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di di sant waa jabaay yëpp xama di leen wax ni na ñëpp ñëw ñu jàpp daan incha allahu rabbi quoi sooba yàlla waaw di sant waa Pikine tamit waa Pikine dañuy ñëw jàpp si bu baax waa Pikine ginnaaraay heure bu ñu xewlee lu mat kaar dañ fay jóge ñëw xama waa Kër Massar di sant sama xam nga di ko nuyu bu baax a baax a baax di sant ñëpp daal képp kuy jàppale Tigre Junior muy Papa Oudou daal laa mën képp kuy képp kuy jàppale Tigre rek ñu ngi lay woo xam nga di la wax nga jàpp si combat bi bu baax a baax a baax waa diaspora bi dañ siy sonn bu baax di si jàpp xam nga Jimbake euh, Jimbake président Rosette démb dafa maa ma xaalis bari na ma yaa ko moom jëlal xam nga ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax di sant Babacar Sall tamit bu baax Babacar Sall day sonn si ñun bu baax a baax a baax monsieur le maire na ñu ngi koy woo xam nga Mbaye Sène ñu ngi koy woo bu baax a baax di wax ne maanaam ay xale bu ñu nekkee si koñ soxla xamaa nga da nga leen di jàppale pour ëllëg danga nga leen di soxla moo tax ku si nekk muy maire muy ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp si bu baax ndax ñun tey jii ni ñoo leen jàppale bañ nekk maire bañ soxlaa maire dañ ñu doon ñëw seet si pour nekk maire tey ji bu ñu nekkee maire tamit ñoom dañoo war a ñëw geesu jàppale ñu muy monsieur le maire mbay seen yow loolu la ñuy wax ak yow nga ñëw jàpp si bu baax xam nga di la wax ni la 15 ñëw na ba pare incha allah waa yëpp génn ñu jàpp duma daan bu jeexee yàlla. jaajëf rendez-vous le 15 août fële ci arène nationale Tigre Junior ak Boy Niang jaajëf sama